fàtte xaaril ma ñëw. ah dina leen tontu. waay ñuy ne wax ci ñoom. waay yee yaru ji ko waay Marie. yëpp yaari war a ci ñoom. dina xamul. waay Marie wax la ñuy waay xaaril ma gi ci kër gi. yeye. bi ci kër gi. yeye. amoo leen kilifa. amoo amoo leen kilifa te amoo leen yaa yéen waa kër gi man Marie Diago may wax ak yéen dafa jot ñu xamal leen ne lu ëpp tuuru te dugg ngeen ci gaal goo xam ne xamu leen fu muy teere te ngeen a mës a dëkk ci weere léegi nag yéen a ngi exagéré ba ñu ma ngeen contesté waaye dafa war a ànd ak respect dafa war a am dignité. mooy tax mu mën a nitee yéen nag da ngeen a ñàkk dignité moo tax mënu leen a nitee rappeur dafa war a am respect ba pare nekk di yeete mel ni daara ji famille fata ba xaw bidéew bu bees pakot yi waa kër gi dafa jot ñu xamal leen président du n'importe qui dangeen ko war a jox cër warmaal ko jàppee ko ni seen paay rapport bu fi pan inspiration songo institution yéen nag da ngeen a fànn inspiration ba pare nekk ay con rapport dafa war a am classe ba mel ni Canabasse caat gi ci kër gi ci kër gi amoo leen kilifa te leen respect caat gi ci kër gi surga bi ci kër gi amoo leen kilifa diib moo yëbbu seen furu fara bi mu ñëwee ba tey mënatu leen am dara xanaa da ngeen a fàtte lu yàggul dara bi ñu leen jàppee Congo di leen toroxal ngeen sol ay toqal di génnee ay rongañ président Macky Sall mooy ki leen fa teewal bu duloo nag prési gars yi leen ceebal ngeen waroon koo wormal malheureusement du ngeen ay nit ndaxte da ngeen a joppal prési d'abord une population Sénégal du leen wax ne yor lu mu la mayul ci lu du la ko xañ te nit bu yore di ko mbedd mi dana ko yar nit nag bu respecté wul baayam du respecté baayu jàmbur man nag dama yar dama am tegin kenn xamee ma xuloo kenn xamuma xastante li ma tax a jóg mooy taxaw ci jafe askan bi Sénégal émergence Sénégal jëm kanam loolu moo ma tax a jóg wax bu bon dëkkul fu mu jëm fu mu jóge la cosaanoo leen wax ne wasalaam wasalaam waaw waaw <laughs> gis ngeen nag yéen de li bëgg tontu nit yi yéen waa kër waaw ndax yéen lu leen tax a jóg ñëpp xam nañu ko seen i poche sesikimu bimbeli ko ngombu bambara waaw yow naga moomu doo kilifa de ndax kilifa du gene wax bu bon boobu nga wax yow surga bu bon nga ngay def sesikim bimbeli ko mu boro su duus bu ngeen tukki seen yamba ba seen bopp bi yëngatu rek ngeen jubale ci sooga bi ci kër bi amu leen kilifa te amu leen respect caat bi ci kër gi sooga bi ci kër gi amu leen kilifa te amu leen respect jërëjëf Marie Ndiaw lii nag xale su yarwul rek mbedd mee ko yar yéen a ñàkk kilifa